bisimilah. waaye dégg laaj bi ñu wax ne wird yi ñuy joxe ak turu yi ñu di ko dégg ci rajo yi ak ci télé yi ndax yoon la ndax lu war la ak wala na mu demee turu yàlla ñaari xaaj la. ديغ تودي الاذن العام اك لي تودي الاذن الخاص الاذن العام موي سون بروم لي مو سنتاني كوكاي فاتليكو دي تود تورم مو تاغ غا نيغا خامني دانيو ساخال تورو يالا سي سين گيمي ديكو تاتانو سي سين خول موي دوج سين بير خول ني ديكو ييب يعني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك متجد دا نيغا خامني دا ني تود يالا مو خام سي سين لان ولا سي سين خول دا نكوي تود وقتو ونيو تخاوي دا نيو تخاو ديكو تود دا نيو ديكو تود دا ديجو ديكو تود سن بروم tagg leen santaane ne fadkuruni adkurkum washkuru li wala takfuruni na ngeen may fàttaliku maanaam na may tudd ma di leen fàttaliku suñu borom du fàtte bay fàttaliku waaye maanaam li mu tekki mooy mu jëf leen teeg yow jëfi ku la fàttewul yooyu ndigal la yoo xam ne dañ ko digal jullit ñépp jullit ñëpp digal nañ leen tudd yàlla te tagg na suñu borom tagg na ñi nga xam ne dañoo saxoo di tudd yàlla fu ñu toll rek bërëb boo xam ne bërëb bu laab la bu ñu terewul ku fa tudd yàlla ni ki bërëb bi yi ñuy wax fi nit ñuy demee doxe seen faje seen aadi maanaam euh, kanifa yi mooy duus yi daal araam na ku fa tudd yàlla boo amee jaaro boo xam ne sax bind nañ ci tur yàlla da koy summi bala ngay dugg boo amee gàllaaj bala ngay dugg da nga koy summi wala maa yi am nañ ci ay wax ñee ñeeñu bu fekkee ne dañ koo muur ni ki nu ñu ko dañ koo ëw ak der na nga duggaale am na ci ulama yi ñoo xam ne wax nañu loolu waaye itam nga summi ko boo ko mënee ba tey moo gën a sell waaye boo ko dugalee ka nga xam ne itam dañ koo ëw der muur ko yitam nee ñu bàkkaar nekku ci xam ne kon tur yàlla julit daf ko fonk ba nga xamne dafa jaxaso ak dundam ci lepp loolu moy al isnul am li ñu digal bépp julit suñu borom mako diggal bepp julit boko defé tuya bam bari na lool al isnul khas nak moy ndigal lo xamne lu particulier manam lu ñu jagleel ñennet nit la ndigal loolu nam demé jëm jo xamne da fay arif billahi ben sayyidina khadir jox ko tur wala malaika jox ko tur wala mu gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci gënt mu jox ko tur wala mu gis ko jahran mu jox ko tur ci lu gënt wala ko kenn ko xamne ci eh, kenn ci ñooñu mo la jox tur wi sakal la lim bo ca yem muy nga diko sikar sax ca saxoo ko muy fët sa xol ba nga ag ci yalla waye ngagn nañu tur yalla wo xamne dang koy tudd ngir yok wërsëg wala ngir am alal wala ngir am teranga da ngay tudd yàlla nam ci jëmmi yàlla rek boo ci nammee jëmmi yàlla rek am na àgguwaay boo xam ne boo ca àggee suñ borom notal la mbindee fii ñuy faj sa aajo wala mu yokk sa wërsëg wala mu barkeel sa lépp wala mu faj sa aajo al ismu xaas boobu nag day jóge ci arif billahi arif billahi mooy kan mooy ñi ma waxoon ki nga xam ndax malaayika yi am ci nit ñi nga xamne malaaka la malaaka mo leen di tërbiye di tarqiye leen ba agale leen ci yàlla am ñu xamne sayyidina xadr mo leen di feñu tërbiye leen am na ñoo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam wala kenn ci ñeenti sahaba yi bu fekke nak ben aarif wala kenn ci ñoo ñi ma tuddoon mo la jox tur wala ko xamne ne ko jox koka ba koka joxat keneen diko jox lante bam aksi ci yow ñu jox la ko jox la charte yi jox la lim ba wax la waxtu waxtu wi nga di ko def te bàyyi woo ko incha allah da nga àgg ci yàlla ndax tur wax